jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen ci santaat di leen gërëmaat beneen yoon di leen joxaat xibaar yoo xamante ni dañ ko jëlee waat fële ci Guinée euh, comme niñ leen koy euh, waxee rek lépp loo xamante nii dafa jëm ci wàllum actualité rawatina ni ci élection Guinée yi ñu génn ba tax na rek ñi daal di leen toppal li nga xamante nii moo fay am lu ñu jot déggaat léegi ci ay xibaar gannaaw déclaration bu Cellou Dalein jàlloo daal doon def ci ngoon gi déggaan nañ léegi ci ay xibaar ki nga xamante ne nii moom moo di Alpha Condé dafa daal di def li nga xamante nii moom moo di choc dafa daal di def li nga xamante nii moom moo di accident euh, ci ci otom bi euh, mujjee rebondissé wu ba tax na nag fu mu toll nii lu ñu jotagum ci ay xibaar mooy ne que di nañ ko embarqué yóbbu ko fi nga xamante nii moom moo di Turquie wante nag. xibaar yi dinañ leen ko toppal nu mu waree ba ñu am ci lu ñu gën a leer fu mu toll nii ñépp a ngi nekk ci tiit ak njàqare xamuñu Alpha ba xam ndax loolu ñu wax ci moom ndax choc bi dafa garaaw loolu moo tax ñu daal di ko évacuer walla moom ci boppam stratégie politique la boo xamante ne nii ay ñooñam ñoo ko ko xalaatal wala moom ci boppam moo ko xalaat lu ci mënti nekk rek dinañ leen toppal xibaar yi fii ak waxtu yii di ñëw ba ñu xam ba xam ndax lii ñu wax ci moom ba xam ndax lu wër la walla wërul ñun nag ñoo ngi des ci suñuy gëstu di xool pour daal di ñëw wasaare ko fi nga xamante ne nii moom moo di groupe yi di suñu média wante lu ñu mën a jàppandi ci exclusivité rek mooy Alpha Condé serait malade et embarqué en Turquie léegi nag ñi daal di des ci wax yi nga xamante ne nii loolu lañu jota dégg ba tax na nag li nga xamante ni moo fi jota fës ci waxtu bii ñu nekk mooy lu yéeme lool di lañ jox dig daje rek ba ñu amaat yeneeni xibaar